salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax a baax ba tey seen mbokkum taalibe la Ousmane Seck ndongal borom daarul moxti ñu ñëw ak yéen ci seen naafil ak fukkeel gi ak juróom-ñaar fukkeel gi ak juróom-ñaar Euh, ngeen ci ànd ak Serigne Ousmane Seck ndongal borom darul Mouhty ci seen site bii di SN Xibaar euh, téere bi di Xuratul Ayni bu Serigne Chouaïbou euh, sëriñ bi dafa wax ne guddi fukkeel gi ak ñaar di naafila fukkeel gi ak juróom-ñaar dafa wax ne képp koo xam ne julli nga ci fukki rakkaaw ak ñaar rakkaa bu ci nekk nga jàng ca faatixa benn yoon ak inna anzalnaahu ak xul huwallaahu lu ci nekk ñaari yoon dees na ko ci bindal tuyaaba ju toll ne li mu eh, ka jëkk a gëm yàlla ba ca ka mujj a bu fekkee dafa tafa dafa tawatoon dana wér bu amee woon bor yàlla dana ko fay bu nekkoon ci njàqare it dees na wuññi njàqareem te dees na ko musal ci sawara muy naafile gu am solo dafa wax ni fukki rakka ak ñaar lay doon mooy guddi fukkeel gi ak juróom-ñaar fukki rakka ak ñaar lay doon bu ci nekk fatiha benn yoon inna anzalnaahu ak xul huwallaahu lu ci nekk ñaari yoon dees na ko ci bindal tuyaaba ji toll ne li mu ko jëkk a gëm ba ci ka mujj gëm bu fekkee dafa tawatoon dana wér incha allah bu amee woon bor yàlla dana ko fay bu nekkoon ci njàqare it dees na wuññi njàqareem te dees na ko musal ci sawara waaw asalaamualeykum wa rahmatullah